jërëjëf Maria. Euh, comme ni nga ko waxee gouvernement yi passé walla régime yi paase am na yu bari yu ñu def waaye nag des na lu bari aussi lu bare bare bare bari boo xam ne. defaguñ ko ci ci domaine handicap te damay faral di wax ni. Euh, xam nga boo xoolee li ñuy wax rapport mondial sur le handicap parce que fukki at yu nekk. OMS organisation mondiale de la santé ak banque mondiale dañuy dajale experts yu bëri ci domaine yu bëri. yoo xam ne dañuy jàngat mbirum laago ci àddina bi. bu ñu ko jàngatee ba pare dañuy defar benn rapport ñu tuddee ko le rapport mondial sur le handicap nga xam ni dañuy wax exactement lan mooy état handicap ci àddina bi réew par réew. boo xoolee rapport boobu bu mujjee génn li ñu wax ci Sénégal mooy Sénégal téeméeri nit yoo fi jël fukk yi ak juróom dañu amee laago mm-hmm. exactement d'ailleurs quinze virgule cinq pour de la population xam nga lim bu takku la mm-hmm. ndax yegg na ci ñaari million ngi nit mm-hmm. ñun toujours dañuy wax ne mënuñu envisager def émergence su Sénégal wala comme moo nekk en vogue mënuñu am projet de transformation du Sénégal en mettant entre parenthèses pour cent de la population que constituent les personnes en handicapées moo tax ñuy wax ne faw ci initiative publique les politiques publiques les programmes et cetera faw ñu boole ci ñi nga xam ne dañu dañu amee laa ko mm. malheureusement euh, coono yi ñuy daj mooy wane ne ba léegi boole boobu des na souvent dinañ la boole waaye dañ lay def genre léeg-léeg faire valoir. Mhm. wala ñu defar dara ba mu sotti ñu ne ah nañ leen woo boog wax leen. Mhm. waxuñu loolu dañ ne moment bi nga xam ne ñu ngi concevoir politique yi moment yi nga xam ne ñu ngi koy mettre en œuvre moment yi ñu koy bind moment yi ñu koy mettre en œuvre ba moment yi ñu koy évaluer handicap dafa dafa war a teew. Mhm. mais boo xoolee ba léegi euh, quinze pour cent population yi mal la wax léegi ba léegi ñu ngi dund ci. ci discrimination ñu ngi leen di fegg ba léegi ci réew mi. te loolu yaa ngi ko mën a natte ci benn am na étude bu ñu defoon boo xam ne fegg boobu ñu ngi koy natt ci ñeenti poñ. Mm-hmm. bu njëkk bi mooy jafe-jafe yi nga xam ne tey ji Sénégal way laago yi am nañ ko. Mm-hmm. pour dem ci service de santé wala service de réadaptation c'est-à-dire mm-hmm. service de santé. lan moo tax ñu am ay jafe-jafe service de santé ak réadaptation mooy d'abord. Euh, structure sanitaire yi hôpitaux yeeg centre yooyu souvent bu ñu koy tabax du ñu sóor mhm. dina am ñu am laago ñoo xam ne dañ ko war a fréquenter beneen bi mooy personnel soignant bi ñi nga xam ne ñooy faj ñoom it duñ leen waajal pour ñu xam nan la ñuy jëlee en charge malade boo xam ne dafa dafa am laago mhm. euh, boo xoolee lu mel ni ay sida wala yenn maladies yi nga xam ne dafay laaj confidentialité. Mhm. bu fekkee par exemple dafa dal muuma koo xam ne du dégg wala du wax te mu war a am confidentialité entre moom ak docteur mhm. nan la docteur bi di communiquer ak moom. Mhm. te keneen du ci bokk parce que bu ci keneen bokkee rek génne nañ confidentialité. donc war nañu waajal personnel soignant yi naka la ñuy jëlee aussi en charge. ñi nga xam ne dañu amee laago. ensuite équipement yi. yaa ngi doon wax jigéen ñi léegi. chaque jour. jigéenu handicapé yi dañuy éprouver ay jafe-jafe. bu ñu nekkee ci li ñuy wax santé de la reproduction léeg-léeg taabal yi ñuy wasine du adapté. léeg-léeg yenn équipement yi du baax loolu yëpp boo ko boolee nga dolli ci aussi les coûts de soins de santé. loolu yëpp boo ko boolee day nekk jafe-jafe pour ki nga xam ne dafa am laago ñi amul laago sax déjà am nañ jafe-jafe à fortiori nag boo boo amee laago beneen bi mooy service de réadaptation yi aussi. dafay am problème ndax boo nee handicapé rek wax pousse pousse wax béquille wax appareil orthopédique généralement nga wax aide technique or yooyu yëpp daanaka kenn du ko defaree Sénégal ay mbir la yoo xam ne dañ koy importer te loo wax importation rek wax ne cher na mhm. alors beneen ñaareel bi mooy jafe-jafe yi ñu am mu jëm ci wàllu éducation ak formation c'est-à-dire difficulté d'accès ak l'éducation et à la formation foofu tamit liy mandargal jafe-jafe yi mooy lu ñu waxoon sànq ci structure de santé xam nga ñu suñu école yi. Mhm. ak centre de formation yi bu ñu leen di tabax du ñu mhm. sóor ne. Mhm. am na ay aprenant yoo xam ne dañu am laabo dañ leen war a jël en compte. ci nit ñuy tabaxee. duñu ko def souvent dañ koy fàtte. beneen bi mooy jàngalekat yi dans leur curricula de formation. ñoom it duñu leen waajal pour ñu xam ci biir classe naka ngay yore xale boo xam ne dafa am laabo. loolu dafay indi problème beneen bi mooy matériel didactique bi ñuy jëfandikoo aussi souvent du adapté parce que boo amee xale bu silmaxa ci sa classe xam nga kooku du soxla ardoise wala cahier wala bic parce que du gis mais loolu am na beneen matériel bu koy remplacer mm. ñoo poinçon ak tablette te mm. boo xoolee poinçon ak tablette boobu nga xam ne moom la silmaxa bi di jëfandikoo bokkul ci listu matériel didactique donc looy wuti ji feneen la te boo koy wuti feneen dafay gën a seer yooyu boo ko boolee day wàññi Euh, bokk gi nga xam ne laago yi ñu ngi koy bokk ci njàng mi ak ci mhm. formation bi mhm. te loolu moo jur ñetteelu problème bi muy jafe-jafe yi ñu am pour pour liggéey maintenant pour insertion ndax nit ko aussi bu jàngewul école deful formation amul métier du mën a liggéey mhm. bu fekkee na nga am laago teg ci euh, su souvent dama koy wax gars yi di ree métier yu bees yi sax handicapé yi mënuñu ko def métier yu bees yi mooy la mooy nga dem entraîner am doole dem bëri ji loolu moom soxlawul reculer wala boog nga nekk dawalkatu Jakarta wala nga nekk agresseur te loolu yëpp handicapé mënu ko def dëgg la alternative bi lan la kon mooy mu dem yalwaañ boo gisee donc xale yi handicapé yi nga xam ne dañu nekk en âge de production muy góor muy jigéen nekk biir Dakar wala ñu ne ci dëkk yu mag yi di yalwaan yëpp booy xool aussi dangay war a comprendre ne c'est parce qu'on a un système d'exclusion de fet moo leen indi loolu mhm. bi si mujj mooy euh, li ñuy wax les problème d'aménagement du cadre de vie général. surtout mhm. surtout le cadre mhm. xam nga handicap ñu ngi koy definir surtout ci nit ki nga xam ne euh, ci niveau de participation nit ki ci ni société bi di ndax mu ngi am participation pleine entière wala participation limitée or boo xoolee Sénégal at yi passé yëpp ñu ngi doon tabax ay infrastructures yu bari. Mm-hmm. ay route autoroute autopont BRT TER mm. corniche et cetera yooyu mbir yu baax la mais war nañ toujours bàyyi xel ni ay citoyens ñooy jëfandikoo infrastructure yooyu te ci biir citoyens yi dafa am ñoo xam ne dañu am laago mm-hmm. am na lu ñuy wax ay normes architecturales mm-hmm. souvent duñu respecter normes architecturales yi parce que bu ñu ko doon respecter du am jafe-jafe parce que boo demee Europe wala ay Amérique yooyu ñun jafe-jafe yi handicapé yi am fii duñ ko am foofu parce que ñooñu bu ñuy tabax wala bu ñuy defar dañuy sóor ñi nga xam ne dañu am handicap ba ci seen transport mu xam bus yi la tey jii handicapé bu nekk ci pousse-pousse nga bëgg ko dugal ci tata mhm. wala nga dugal ko ci njaganjaay wala car rapide c'est tout un problème mhm. loolu mooy sóoruñu ko mhm. nga dem corniche ñëpp nee nañ corniche bi dafa rafet mais xoolal fu la neex ci corniche bi sumba jun ba fii nga gis benn handicapé bu nekk ci pousse pousse nekk ci côté bële bëgg a traversé dem ci beneen côté. Mhm. amul dara lu ñu prévoir. dëgg la cela veut dire que donc nos infrastructures aussi ne prennent pas en compte le mhm. fait que il y a parmi les ay handicapés yoo xam ne dañu war a jëfandikoo yooyu donc loolu yëpp dafay limiter. Mhm. sa participation. donc dafay yokk sa sa handicap. loolu mooy li nga xam ne mooy jafe-jafe yi nga xam ne moom la handicapé yi di tudd maintenant. bi ñu defee constat boobu aussi ñun en tant que kuréelu waay laa ko jéem nañ ci xalaat jéem indi ay ay proposition waxtaan def plaidoyer def sax pression jamonoy Ablaye Wade ba am lu ñuy wax la loi d'orientation sociale parce que ci biir loi boobu bi ñu koy defar dañ ci dugaloon ay mécanismes yoo xam ne bu ñu leen toxalee dina indi ay tontu ci jafe-jafe yi ñu doon wax moo xam njàng mi la moo xam santé moo xam transport. moo xam accessibilité et cetera. am na mécanisme yu bëri yoo xam ne def nañ ko ci biir loi bi mais loi boobu 2010 la woon ñu ngi ci 2014. 2024. 2024 laa wax donc 14 ans ba ñu defaree loi beeg léegi daanaka jëmmaluñ benn mécanisme. benn te il y a une quinzaine de décrets d'application. yu ñu war a jël. pour jëmmal mécanisme yooyu ci mécanisme yooyu yëpp benn rek lañ ci jëmmal mooy li ñuy wax la carte d'égalité des chances. loolu benn mécanisme la bu am solo aussi. mais malheureusement niñ ko doxale baaxul. parce que boo xoolee carte d'égalité des chances Macky Sall boo ko lancé le 30 avril 2015. donc suba lay am juróom-ñeenti at diñ ko lancé ak léegi. carte boobu dafa am ñaari fonction yoo xam ne moom la ko loi bi jox première fonction mooy fonction d'identification. c'est-à-dire que genre carte d'identité handicapé la képp kuy handicapé rek war nga ko am. Mhm. loolu li taxoon ñu def ko njariñ li mooy ñu mën a am statistique yu fiable. parce que handicapé yëpp am nañ carte bi ak information yëpp. di mhm. xam exactement ñaata handicapé ñoo ne ci réew mi. Mhm. ñaata góor lañu ñaata jigéen lañu ñaata xale lañu. te information yooyu boo ko amee. day mën a orienter décision yi ngay jël. ci ci ci wàllu politique loolu moo taxoon ñu jox ko fonction boobu. deuxième fonction bi. moo doon fonction de service wala boo fonction de protection sociale maanaam handicapé bu yoree carte boobu jafe-jafe yi ñu doon lim sànq day gën a am un accès beaucoup plus facilité à ces services sociaux de base. Mhm. maanaam dina gën a am accès ci santé ci njàng mi ak ci yeneen. Mhm. donc ñaari fonction yooyu lañ jox carte bi. Mhm. donc carte bi am na 9 ans suba lay am 9 ans exactement jour pour jour suba. le 30 avril. mais ci 9 ans yooyu état bi defarul lu dul 72000 cartes. Mm-hmm. sur une cible de 2 millions wax nañ ko léegi 15,5 pour cent de la population. Mm-hmm. sur une cible de 2 millions dinaa produit que 72 000 cartes en 9 ans loolu mooy kañ la mbir mi di mag kenn xamu ko. mais loolu aussi li muy tekki mooy mooy ne système bi ñu teg pour di defar carte bi système boobu baaxul parce que la production et trop lente. Mm-hmm. or c'est un droit pour handicapés yi ndax c'est l'article 3 de la loi qui le képp kuy handicapé rek war carte boobu donc premier problème mu carte bi mu ngi léewu ci première fonction bi maanaam rythme de production trop lent deuxième problème bi aussi mi ngi liyewu ci deuxième saafara bi mu war a faj maanaam yow boo ko yoree nekk handicapé war na laa yombalal nga am accès ci service yi ñu waxoon sànq mais chaque jour chaque jour laa la wax nit woo ma ñu jot am carte bi waa président moom suñu carte bi ban njariñ la am dem naa hôpital ñu dàq ma dem naa fii kenn jëlu ma ñii reconnaître ñu ko et cetera donc service yi nga xam ne moom la carte bi di porter ces service là aussi ne sont pas effectifs amul suivi amul suivi mhm. donc loolu mooy ñaari problème yi moo tax ñun encore une fois yaa ngi wax sànq ne def nañ benn contribution mais ñun suñu stratégie loolu la dañuy wax toujours ne jarul ñu fi nekk comme que sax bariwuñu doole di sànni ay xeeral di toj ñun amuñu <laughs> doole boobu mais quand mën nañu xalaat parce que yàlla def nañu ñun suñu biir am nañu toutes les mën nañu xalaat jéem a jox gouvernement bi ay orientation jox leen ay solution wan leen ne fii bu ngeen fi jaaree mën ngeen a indi ay ay ay saafara mm-hmm. loolu moo taxoon ñu proposé woon wax ne carte d'égalité des chances bu ñu ko érigé def ko programme national de la carte d'égalité des chances dina mën a am li ñuy wax moyen logistique moyen technique moyen humain moyen financier nga xam ne programme boobu liggéeyam yëpp mooy produire fépp fu handicapé yi nekk. ci Sénégal ñu fekk leen fa. parce que xam nga ni ñu defee loi bi yow handicapé bi da nga war a jóg dem ci chef lieu de département bi. pour ñu inscrire la. mais xam nga bu dee Dakar nga nekk wala Thiès doo doo yëg problème yi trop mais boo génnee ci région yi nga xam ne. diggante département yi ay centaine de kilomètres la deux cent kilomètres. foofu ngay gisee jafe-jafe bi di nga dem ci euh, zone yoo xam ne faaw nga traverser ndox wala nga jël gaal et cetera pour mën a dem ci chef lieu de département bi. Hmm. moo tax ñu ne bu fekkee érigé nañ ko en programme national ña fay nekk ak moyen logistique yi ñuy def foofu ñooñu dañ mën a déployer wu yow fépp fu handicapé nekk ñu tekk ko fa enrôler ko. Hmm. beneen proposition bi ñu def pour que service yi mën a parce que ñi am carte ñaari service la ñu ñenn ñu quoi du ñëpp. am na ñoo xam ne am nañu bourse de sécurité familiale. Mm-hmm. am na ñoo xam ne ñu enrôlé nañ leen ci CMU couverture maladie du ñëpp mais loolu toujours tam dañuy wax ni sànq wax laa ne loi bi 2010 lañ ko defal donc carte bi ñu ngi ko bind mille 2010 boo xoolee CMU ak bourse de sécurité familiale Macky Sall moo ko indi. Mm-hmm. te Macky Sall mu ngi ñëw ci réew mi en donc carte bi visé woon loolu parce que loolu amul woon. carte d'égalité des chances ne visez pas la CNU ne visez pas la bourse parce que ça n'existait pas ça n'existait pas c'est pas ce qu'on mm-hmm. or moom laa wax ñenn ñi rek am na ñu ci am bourse ñenn ñi aussi am na ñoo xam ne enrôlé nañ leen bien que paquet de soins bi ñu leen di jox sax doyul